Bienvenue sur Salam Vision. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا والنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخ تجاني الذي برزق المقتوم تاج العارفين ممد كل أولياء أبو العباس ابن محمد سالم تجاني ورضي الله عن شيخنا وجدنا ومربنا ووالدنا ولسيدنا الشيخ سيد الحاج مالسي wa jamiica muqaddamihi wa xulafa ajmaciin wa baadu nuxayikum bi taxiyati islaamiya naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu santate yàlla julli ci seydina muhammad ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla ñu yàlla defal jàmmi àddina ak jàmmi alaaxira yaa defal ñu sutura àddina ak sutura alaaxira defal ñu xéwalu àddina ak xéwalu alaaxira comme nañ koy ñaanee rabbana atina fi dunya xasanatan waaye nag wa fil axirati xasanatan donc lay ñaan ci àddina wér gudd fan sutura soxna su barkeel njaboot ju barkeel jàmm waaye nag yow xiyaam li lay ñaan mooy àjjana waaye dëkk ak yow fa tabarakallahu di ñaan borom bi subhanahu wa suñu làmmiñ bi yàlla ñu koy saxal di julli ci sangam boobu xaritam boobu xam ne yàlla bëggul kenn ku dul kooku ku mu ni bëgg na la ku dul kooku dalay nax te ku bëgg yàlla bëgg la bëggal waa jooju moo tax mu ne in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkum allahu wa ku bëgg ma bëgg la bëggal ma soppal soppal waa jox la ay xéwal yoo xam ne doo xam fu mu jóge waaye di julli ci moom ndax ku julli ci moom benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon ku julli ci moom fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon mm-hmm. te ku julli ci yow yàlla julli ci yow junni yoon te ku julli ci moom junni yoon bu yoma xiyamati yàlla moom mbagg mbagg bi biir àjjana kon waaye comme li ko kat bi wax rek julli ci moom amul pertement mm-hmm. fa tabarakallahu di ñaan yàlla yàlla yàlla dool yu wér waaye may ñu làmmin ak kattan ak xel bu ñuy xalaatee sàng boobu di rasulullahi di ñaan suñu sëriñ Mawlana Cheikh Tidiane yàlla na yàlla dool li leeram ak mbooleem muqaddam ak mboolem kilifa diine di nuyu di ziar ak xalifatul am di sëñ Muntaxa Mbàkke xalifa général de Mouride. Mm-hmm. atallaahu amruhu wa ayadahu nasara. Mm-hmm. di ko ziar di ko ndokkal ci weeru tëdd bi di weeru baayam di weeru maamam di weeru sëriñam di sëriñ Fàllu Mbàkke mm-hmm. di dem ci maam borom Tuubaa fa tabaarakallaahu ñaanal ko yal yàlla dolli leeram waaye sëñ Muntaxa yal yàlla guddal fanam. mu bokk ak mu tolloog weer wu tedd di weeru yàlla di shahru rajab yàlla nee na rajab sama weer la mhm. maa koy fayal sama waaye weeru koor seen koor la seen weer la daf ko tasaare rajab mhm. shaabaan mhm. ramadaan benn bu nekk bi nga moom waaye rajab yàlla nee man mii maa koy fayal sama bopp kon mu nekk weer woo xam ni weer wu sell la weer wu tedd la am ay julli yuñ ci war def am ay woor yuñ ci war def ñu ni ko ci woor ñaari fan yàlla jéggal na sa bàkkaar yu jiitu ak yu ñëw ak yu ñëwagul waaye du ci yam dalay booleeg sa bàkkaaru ñaari wayjur hmm. kon weer wi weer wu tedd la doonte cheikhu ramadan nag hmm. moom mooy mu donte weeru koor hmm. mooy gën a tedd ci weer yi waaye weer wi am na doole lool ku si julli ñaar rakka après timis tabarakallahu yàlla nee na mi ngi ne tey naa la ko defee bi bi yomul xiyaamaatee ay ay këri këri kër biir àjjana mu ne weer wi la rasulullahi jóge woon ci suuf jëm ci kaw jëli julli wa fi zakkin xarxalaat fi chehri mawlidihi suñu maam Siraaj Maali jàngal ñu ko suñ sëñ Fallu ne boobu bara sullaay ne yàlla jëm ca kaw mm. mu ne yàlla ñëw ci suuf kon mu nekk weeram mm. ba pare ñu tuddee ko alfadilu muy borom ngëneel mm. alfadilu mooy borom muhammadul fadilu muhammad ku ñu sant waaye alfadilu muhammad mooy ku ñëpp sant waa kaw ak ahmad daa am ba demee ci alaaji mansour wa xaamidun wa ahmadun wa muhammadun kon nabiyun soo xosama sima kay ne samiya kon nga xam ni kon weer wi u tëdd waaye nag mu nekk ngëneel moo tax waykat yi ni bi nga ñëwee yow sëñ ci la taal ci la tali bi àgg mm-hmm. ci la raay bi àgg mm-hmm. waaye ci la jumaa ji tamit yegg mm-hmm. waaye tamit ci la ginaar yeeg jasneer yi oto yu noy yi mi ngi ñëwee ci mi ngi ñëwee ci suñu maam suñu Fallu Mbàkke kon yàlla yàlla doon leeram di ziyaara suñu sëriñ boobu di fa tabarakallahu suñu Cheikh Oumy nekk ba Tuubaa di ko ziyaara di beesalaat suñu cofeel ak suñu kóllëre ak moom noonu la ñuy nuyee fa tabarakallah sëñ Abdou Karim Mbacke mm. borom makaarimu axlaaq fa tabarakallah moom mi nga xam ne ba mu jëlee kaamil jox Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ji mm-hmm. Mansour dafa ni ko Karim jox na ma Karim Karim jox na ma Karim mm-hmm. kon Karim mm-hmm. mooy sëñ Abdou Karim jox na ko Karim mooy alquranul karim kon fa tabarakallah yàlla yàlla guddal fanam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallah di nuyu de Tijane di Serigne Babacar Sy ak mbooleem xalifa généraux yi ci kaw suuf di nuyu fa tabarakallahu kilifa réew mi di see di di président réew mi ak mbooleem opposant fa tabarakallahu réew mi nag réew mi yëngu woon na moo tax fa tabarakallahu euh, gouvernement bi dañu ñàkk jom rek dañu ñàkk jom peuple Sénégal dañu ñàkk jom mm-hmm. waaye war nañu respecté daara yi mm-hmm. war nañu respecté daara yi mm-hmm. war nañu delluwaat daara yi seen cër xool leen bi réew mi yëngatu Mouhamed loo dégg ñuy wax na kilifa diine ñaar waxuñu mukk na waa école bi wax waxuñu mukk na waa université wax waxuñu mukk na waa Gaston Berger wax ñan la ñu wax doomu daara yi ndax kilifa yi ñooy doomu daara yi kilifa yooyu ci daara lañ génne kon bu ñu fa bëggee nekk bëgg fay daara yaakaar naa ne ñoom ñoo ngi nax seen bopp jamono yey na ne leen tey xoolal imaginer tey bi réew mi tàkkee ña ñoo taal réew mi université ñi nga xam tubaab yee leen yar ah ñu génne université ñu doon taal réew mi de ñoo lakk Auchan yi ñoo lakk hôpital yi ñoo lakk dispensaire yi ñoo lakk ñoo lakk ñoo lakk tribunal yi gisoo ci benn doomu daara bu yor matt wala mu yor xeer naan ma ngay sànni ji ñoom ñi ñu defar ñooñu ñoo doon defar loolu ñoo doon def loolu waaye doomu daara yi bi ñu demee ne ba jom xam ne dëkk baa ngi tàkk lan la ñu wax mm. na kilifa diini yi wax na kilifa diini wax ko diine boobu wax lan la du doomu daara si mu ndaxaar doomu daara mhm. fan la génne ci daara sëriñ Babacar Si Mansour fan la génne daara la Cheikh Cheikh génne Euh, maam li maam Thierno ba fu mu génnee. maam li maam fu mu génnee. kon dañu ñàkk jom waaye war dañu respecté daara yi. Mhm. xam na ne mbir mi. Mhm. ci daara la nekk. daara rek moo la mën a teg nit ci yoonu siraatul waaye mhm. ba ñu commentaire ko ñoom journaliste yi. commencé yuuxu ko. commencé taqal ustaas yi. taqal imaam yi. te fu ñu jommee fu nekk rek. doomu daara yi di ñaanal. kon war nañu amaat jom bu baax a baax. jàngaat ci bu baax a baax. war a dooleelaat daara yi. dooleelaat ustaas yi. waaye dooleelaat ñi nga xam ne ñoom ñooy imaam yi. ndax bi mu jommee Mouhamed dégg nañu ñaan nañu ñaan nañu ñaan mm-hmm. te ñoom bi ñu waxee rek la coow di jeex kon buñ fi buñ fi nekk woon fu ñu jëm réew mi day fu ñu jëm kon nañu respecté doomu daara yi uh-huh. nañu jox doomu daara cër uh-huh. xam ni yàlla moo jël alxuraan du ku mu neex la koy def sa dënn uh-huh. te ñuñu fu mënuñoo fexe fexe ba ba ba xam ni mooy alxuraan du jëm ci kaw inna nahnu nazalna zikra waaye wa inna lahu la xaafizuna yàlla nee na maa fii ñu di ko tudd di ko jàng waaye man yàlla man maa koy wattul sama bopp te lu yàlla wattu bokk la lu keneen di wattu kon yàlla xeet boppam bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di di jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xam ne mooy kilifa kër gi di Serigne Sam Seck mm. di taalibe Cheikh Oumy Mbacké mm. di ko ziar di ko ñaan yal na yàlla di taxawu kër gi noonu la ñuy ki nga xam tey moo réalisé mbir mi mm. di Serigne samb Diouf di ko ziara di ko ñaanal yàlla yàlla taxawu ko waaye noonu laay nuyoo sama naataango bi si Mouhamadou Mouhamad Ndiaye nekk nag man fii ci télé bi Salam Vision xam ni yéen waa diaspora bi waa waa waa waa waa waa waa Sénégal yéen a ngi koy di ko safoo di ko seetaan ànd ak seen xarit seen sopp seen doomu ndey mm. al oustaz Ibrahima Diarra fii mm-hmm. ci Salam Vision mm-hmm. ci jataayu mag mm-hmm. waaye yemut itam al ilmu wa taalimu di xam ak xamle ñu ànd ko ngeen comme ni ma ko waxee woon rek lu ñu am génne ko li ngeen xam ngeen dolli ñu ko ñu bokk ndoo sànni ndoo ko ci àdduna bi ñëpp jëriñoo ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu euh, ñu ñëw tey nag ñu nekk ci weeru tedd bi di weeru kasu rajab euh, Mouhamed rek fa tabarakallahu ñoo ngi ci kasu rajab euh, mu nekk tey weer bi nga xam ni moom la suñu maam sëñ Fàllu ganes woon àdduna euh, mu mu mu fu mu soqeekoo nag ci ku mu soqeekoo du ku ne mooy ko ci moom ci kan la soppeekoo ci Cheikhu Ahmadou Bamba xaadim rasul mi nga xam tey moo dem liggéeyal yàlla jëm liggéeyal yàlla liggéeyal yàlla bari na façon waaye ni mu liggéey léegi nii yàlla amul kenn koo xam ne liggéeyal noonu noonu yàlla ndax kenn ku nekk ni la yàlla mayee kenn ko ne ni la yàlla mayee xoola yonent yi bari nañ lool yonent yàlla ibrahima yonent yàlla muusa yonent yàlla noox yontu yàlla isa mm-hmm. mais kenn ku ne bokkul ak sa morom may xool yontu yàlla isa mm-hmm. daan fekk bàmmeel yi mu raay leen ñu jug mm-hmm. nga fekk yontu yàlla isa la nga joxoon na ko yet bu kay mi xe wamaa bi yaminika yaa ala ganami waaye nag ni ko bant bi nga yor ni mu lu baax noonu la amee lu bon keroog bi nga xamee ne Firawna jël li nga xam ne moom mooy ay ay ay njibarkatam def ay jaan yàlla ni ko sànnil ja bant bi ba mu sànnee bant bi bant bi nekk jaan lekk jaan yu fa nekkoon yëpp wala xoolal loolu yàlla moom la ko may keneen ak keneen wala bu maam borom tubaab taxawee ne ilaya xaada allahu maa lam yakuni waaye nag wala yakun abadan li mumkini kon kolol boo ko kenn weddi Cheikh na Tijaani daan na xadara ba yaram tàng mu naan ana ana ana ana ana te keneen ku wax ana ana ku dul moom mm. yàlla rek sa digg te boobu ana lay wax mm. te arab dafa ni ana ana laysa huwa mm. te daan na xadara ba yaramam tàng mu naan ana ana ana ana bi ko muqaddam yi waxee ni ko Cheikh seetlu nañu bu nit ñi wax allah allah allah mm. ana ana ana ngay wax mm. mu ne su ma ko waxatee jël leen paak ngeen teqli sama baat waaye gars yi jël jël jaasin fu bu yaram tàngee mu naan ana ana ana ana ana ana hmm. gars yi xàcc bu ñu xàccee bu ñu ko ci dóoree bu mu lay doon lax si baat bi nga xam ni ko ñii ni sax day dagg daw lu sore bu yëngatu yëngatu lu yàgg dellu si waat duggaat ci boppu Cheikh Tijaani hmm. nga xam ni kon foofu leneen la hmm. mbiru suñu borom la innal fadla bi yadillah yuti man yashaa wallahu zul fadl azim kon loolu maîtriser wu rek maîtriser wu ko waaye nag bu ko weddi loolu tële neel maa ko tële waaye bu li ñëpp ñoo ko tële Muhammad eh, kon ñu bàyyi rek sànni si ñaari kàddu rek après ñu agré si émission bi ñu ngi teg sa nuyu fi nga daanelee rek tabaarakallaahu comme ni nga ko waxee di nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp di am kontaante ak uh, mbégte bu baax a baax ci bokk yow gi ñu bokk yow mooy jotaay bi tabaarakallaahu muy jotaayu leer muy jotaayu barke muy jotaayu xam-xam ñi bàyyi xel jotaay bu baax baax di ko siifu di ko jàng di lu bëree bëree bëri ñu ngi lu xam-xam bi mhm. di la ñaanal yàlla tawfiq ak taysiir ci barke yonent bi alayhi salaam di ñaan mbokk yi rek ñu gën a bàyyi xel jotaay bi ñu gën a bàyyi xel jotaay ndax jotaay leer la jotaay yu njariñ la bu mhm. demee ba xam ne tey mhm. euh, géej yi ñooy ñëw di rootal ndaay te ndaa ñoo na fekk géej yi te géej yi ñooy génn di ku mel ni yow di wax ci diini <laughs> nit di ko déglu ku di ko mën a xam kon tabaarakallah loolu yombul lay ñaanal yàlla barke ci barke yonent bi alayhi salaam mu wax am solo ci sunu maam Fadil Mbacke moom nga xam ne mooy borom ngëneel mm-hmm. yàlla jagleel ko ay wayjur mm-hmm. comme ni mu ko waxee ne mm-hmm. Seydina Ibrahima alayhi salaam la daf ko tànnal ay wayur mm-hmm. Seydina Moussa alayhi salaam comme ni mu fi wax mm-hmm. Seydina Isa alayhi salaam comme ni mu fi wax mm-hmm. Seydina Muhammad tamit sallallahu alayhi wa sallam comme mu nga xam ne moom la bu Cheikh waxoon ne lam tazal fii damairil kawni tuxtaaru lakal umahat wal abaaw yow rasulillahi ci àddina bi mu doxee noonu dañoo yàlla di la utal bàyyi waaye di la utal yaay waaye Serigne Fadil tamit noonu rek la yàlla doxalee tànnal ko papa. Mm-hmm. bu baax bu ñëpp xam. Mm-hmm. waaye tànnal ko yaay ju ñëpp xam. mooy mm-hmm. Serigne Fadilou Mbacké muy boromu ngëneel nga xam ne. ci weer wii la Seydina Mouhamed demoon feet seeti yàlla comme ni koy waxee. ci 27 jours. la doon te Seydina Serigne Fadilou Mbacké même timin bés boobu la gane si àddina. kon bésu leer la bésu ngëneel la bésu barke la xaj jara. di am mbégte ak kontaante bu baax a uh-huh. baax macha allah ci waxtaan wi. Uh-huh. di na ndamoo di la safoo. dëgg la yàlla dëgëral la ci barke rasulillahi alayhi salaam wa tabaarakallaahu nuyoo teel na. Euh, ni ngay daanalee dafa teel trop. wa tabaarakallaahu mu mel ni kon ñoo ci weeru sëñ Fallou Mbacke. Mm-hmm. comme ni ko waxee rek. buñ ne kan may waajuram bu góor ñu ni Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul mm-hmm. mi nga xam ne dafa liggéey yàlla mm-hmm. waaye liggéeyal rasulullah yi sallallahu alayhi wa sallam jël lépp jéggal jébbal yàlla mm-hmm. wax nañ ni keroog bi nga xam ne gars yi ñëw nañ ci moom ni ko sëñ Fallou boobu maam Thierno toog ci ginnaawam ndax mu nga sëñ fa sa maam maam maam maam borom Tuubaa danaa wax naan maam Thierno Birahim mooy sama yaddu yum naa mooy sama loxo ndeyjoor mooy sama loxo ndeyjoor maanaam bu muy dem moom la denk njaboot gi maam Thierno moomu keroog bi nga xamee ni sëñ Fall fekk ah, sa membre tubaab fekk nañ ko mu toog. Mhm. ñu ne ko tubaab bi nee na xamul yàlla. Mhm. damay dafa ñàkk teggin. Mhm. mu ne ko nee na xamul alxuraan mu ne ko dafa ñàkk kers. ñu ko xamul rasulullah ci la dënd bi tànk. ndax bëgg gi mu bëgg rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. te pourtant yàlla moo bind rasulullah. te alxuraan waxu yàlla. waaye fu mu tolloon ci Seydina Muhammad wax nañ fi lañuy fi lañuy bindee xasida boobu di lam yabdu mislal Mustafa Muhammadin siral boo jëleen fil baraya samadin war na la liggéeyal yàlla gi mu liggéeyal yàlla mhm. kooku du ku mu nekk rek wala du ku mu neex rek mhm. yaay doon doomam moo keroog bi ko tubaab yi génnee di ko yóbbu mu war a liggéeyal yàlla mhm. mu ne yàlla xamal na ma ni war naa génne dem liggéeyal ko su ma ko añ su ma ko toggilee su ma indee ñëpp añ maa ngi dem ñooñu ci lañ ko yóbboo gamoo keroog bi muy dem mm. ci la bind xasidam bii ni asiru ma abraari xiina asiru mm. waaye nag wasanna al ida anni maa ngi dem ànd ak waa ahlul badar mm-hmm. maa ngi dem ànd ak rasulullahi rasulullahi di ma jàppale ci liggéey bi mm. waaye ñi ma àndal ñoom noonu jàppale ni ñoom laa àndal waaye fekk na ànduma ak ñoom maa ngi ànd ak muhammadu rasulullahi te ku ànd ak rasulullahi doo jom wax nañ demi fa tabaarakallahu bi mu demee noon def na fa sept mois sept ans. Mm. sept mois. Mm. sept semaines. Mm. sept jours dellu si waat bi mu dellu si waatee fii nii kenn ku ne tey yaa ngi añu tey fa tabarakallahu kooku nag moo njëkk jox maam borom Touba addi alquran keroog bi maam borom Touba bëggee kaamil moo ko bind ci loxoom keroog bi ko bindee ci loxoom indil ko Serigne Fallou bi boobu ko bindal dégg naa mi ngi woon ci wanag bi doon doon doon doon sangu mu dégg maam borom Touba ko mu génn bind kaamil bi ci loxoom ba mu jeex fekk maam borom Touba taxaw mu jox ko ci loxoom ni ko ne balaa ma la koy jox bëgg naa nga garantil ma mu ne ko loo may garantil mu ne ko bëgg naa nga garantir ma murit bu njëkk jébbulu ak bu mujjee jébbulu ñoom ñëpp seen yàpp leen xaraamal na safara maam borom tubaab ne teg ba ci ak saar ne teg ba ci ak saar ne ko yàlla jeewal na jibril nangul na la ko ma doo ko jox kaami bi kon fa tabaarakallah kooku li ko ñoroon moom mooy yàlla li al li si rahmaan waxoon ni mm. wallahu arsalahu mm. lil aalamina huddan wa rahmatun mm. kon rahma boobu bi bi rasulullah demee ponkali di ko doxee waaye maam Faal Tine ba mu ñëwee tamit doxee na noonu ndax boo xoolee tamit li mu def ak li mu joxe kan la ko jox moo tax mu jël jë jureel gi jundee ko taalibe moo tax tey lu mu am tey maam Fall tey mu am ko waaye bu ñu waxee ñu ni soxna aw bu sama may way juróom bu jigéen nga xam ni kon fa tabarak waa bu séebi fa la xam-xam yam ci ñoom bu soobee fa la jàng yam ci ñoom bu soobee fa la sell yam bu fa la maandu yam hmm. xool li yàlla teggee doomu aadama yëpp boo duggee mbusa ba fekk ko fa hmm. muy xam-xam hmm. muy wilaaya muy wa zeynul fata baadama tuqaa adabun wa ilmun wa islahun bihi yadurru doomu aadama lu xam-xam bi bare bare bare bare te amoo yar amoo dara te yar gi nekk na ci moom te dañuy wax ne nag alxew alxonq dasas siddit day da ngay xool tey ni ñu dalee ni ñu yaroo ni ñu sellee bu ñuy wax sax doo dégg seen wax nga xam ni kon jël nañu jikkoy rasulullah yi waaye waaye maam borom Tuubaa soppee rasulullahi ay doomam tamit sopp rasulullahi waaye tamit bëgg Seydina Muhammad bëgguñu ko nii ci làmmiñ rek waaye tamit bëgg nañ ko ngir joxe li ñu doxee di si maam Siraaj Maalik waxoon rek wala walay sa nafoon ala hubbin bila amalin waaye nag wa taabia sunnati muxtaar taxtanibu kon nañu nekk ci wéeru sëñ maam Fadlu Fadilu Màkke di doom ci maam Awa Buso fa tabarakallahu waaye doom ci maam borom Tuubaa di ñaan yàlla weer wi yal na yàlla barke lépp yal na yàlla defar lépp bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni fa tabarakallahu comme ni nga ko waxee rek léegi ci Mouhamad Bachirou mm. li wax ci rasulaay mm. lam tazal fi dama il kaw ni tuxtaaru mm. lakkal umahaatu wal abaaw sama sirage maa ngi ni musul dañ du jóge ci ay ndigg yu teey jëm ci ay ndigg yu sell moom rasulaay ila silbi tahiri min min silbi ila ila tahiri mazada maj dokorasiya musul jóge bu jógee ci ndigg yu tedd rek jëm ci ay ndigg yu sell ngir lan ngir tànn gi ñu leen tànnal way jur ngir tànn bi ñu ko ay way jur tànnal ko ay maam tànnal ko ay baay moo tax képp kuy wax rasulaay war ngaa maîtriser kan mooy Seydina Mohamed maîtriser hmm. waaye boo toppee téere maam borom Tuubaa hmm. te topp téere euh, Seydi Hadji Malick hmm. topp téere maam Limaamu topp téere maam Ibrahima Niass di nga jiit di nga xam tuuti ci rasulullaay waaye waroo tëb tëb rek wax ci rasulullaay te wax ci koo xamul da lay indil erreur kon waxee léegi léegi rek nit ku ne dañ lay tànnal ay wayjur moom nag yàlla moo ko tànnal wayjur boobu di maam borom Tuubaa Mbàkke waxul di tëb tëb rek maam borom Tuubaa moo maam kii dafa bëgg a jur kii kii bëgg a doon doomam mm, waaw kii dafa bëgg a jur kii mm. kii bëgg doon doomam ndax boo xoolee ni la waxee noonu a àdduna nga xam ne maam borom Tuubaa jeex tak tak tak tak ci ci biir xasinaam boo demee ci jawartu bil furqaani rabbi al muayni malaktu nafsi wa zahzal ayni axastu dunia zahzal jinaan wal qadari hawa wali safal jinaan wa and abra uxra yaa nag waaye raafaqni ila jinaani jiimun wali sawa zuhzira jiimun nee na man maam borom tubaab dëkk naag ñett moom laa wax kan ak kan yàlla alquran Seydina Mohamed. ku dëkk ak yàlla nag alquran Seydina Mohamed loo amul nekk rek yàlla koy ñor. al alquran a koy ñor. Seydina Mohamed moo koy ñor. kon mel na kon fa tabarakallahu la ñu cër lool ci émission bi. mat na fa tabarakallahu ñoo ngi jégalu ñëpp. di baalu àq ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan ci jiw mi rek jàmm nag. Mm. di fàttalikuwaat société bi. Mm. di waat kilifa yi ne ci réew mi. Mm. nañu delloowaat xel na nañu delloowaat buum sa mboy mboy ga mm. nañu joxaat doomu daara yi na mm. nañu joxaat doomu daara yi cër mm. kon bu réew mi ngoo daara yi la ñuy wax wax leen hmm. kon respecté leen daara yi hmm. te yàggul léegi rek ñoo ngi tëj daara yi hmm. jël taalibe yi di delloo fan lañ ko teg te mi ngeen de waaye xam nañ mbir mi ci daara la lu ñu mën a def tey ci daara ngay jëm si kon fa tabarakallah yal yàlla barkeel ñëpp yéen yàlla dëgëral ñëpp bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi ñoo ngi delluwaat di nuyu tabarakallah suñu sëriñ boobu sa Njaañ Bousso nekk ba fa nga xam ne moom mooy Kër Massar waaye bokk fi nga xam ne moom mooy Mbousso bi nuyu yaayam jooju fa tabarakallah di maman Adama Mbaye nuyu sama sopp sama xarit sama doomu ndey nekk ba galas sëñ Fallou bàyyi Cheikh bàyyi Cheikh ñan waaye soxna ay di di di chéri Adja ñoo lay nuyu bu baax a baax a baax a baax sëñ Fallou la ziar bu baax a baax di la ñaanal fi nga nekk yéen yaa defal la jàmm defal la tawfiix defal la tey si noonu laay ziare sama jarbaatu boobu boobu di soxna Kumba Suuna ba tabaraka wax di ma bégee nekk sama xarit waaye nekk sama lépp di ko ñaanal yàlla may ko taalibe bu baax a baax a baax a baax bu bare bu lu ko yéene lool ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu maam Thierno fa tabarakallahu nekk ba Mbàkke fa tabarakallahu du ma fàtte Sooda nekk ba Italie du ma fàtte Papa Dia bi nekk ba France waaye du ma fàtte sama soxna soosu mm. sama yaay ju ndaw jooju mm. di fi Kolle Ndiaye juree tey moom mooy sama yaay di soxna Dieng nekk ba Dagana di sama yaay di sama xarit waaye di nuyu sama yaay bopp boobu Kolle Ndiaye sama magi boobu fa tabarakallahu wali mata jara waaye dama fàtte sama jarbaatu bopp nag di soxna Ndeye Naam Touré nekk ba Mauritanie di ko ñaari yàlla yàlla dul gudd fanam di nuyu waa daayira mujahidin fi sabilillah waa daayira muxlisin wax muxlisaati nuyu waa sopp Serigne Babacar Sy waaye nag nuyu waa xidmatul xaddim du ma fàtte Baye Jiri yéen ñëpp naa leen ziar naa leen baalu àq ngay tàggatoo rek comme ni nga ko waxee di rafetlu tabaarakallaahu jotaay bi. Mm. di am mbégte ak kontaante bu baax a baax comme ci waxtaan yi nga xam ne waxtaan nga ko gàtt na lool waaye am na solo. ndax xam-xam bu gàtt dars bu gàtt te indi xam-xam. abdul kalaami ma xalla wa dalla xalla wa dalla. wallaahi man darsul qalil. alimul kasir. macha allah xam-xam bu dars bu néew. indi la xam-xam bu bëri. dégg neen fi xam-xam rafetlu nen xam-xam bi. kon jotaay baa nga noonu yàlla na yàlla barkal jotaay bi. ci barke Sidina Muhammad. nga fàttaliwaat émission bi. tabaarakallaahu di leen présenté rek suñu émission boobu nga xam ne mm. fas yéene ko ànd ak yéen mm. mooy keppaaru Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mm. ngeen fas yéene ko ànd ak seen xarit seen soppi oustaz Mouhamed Ndiaye soppee nabi insha allah mu ànd ak yéen bëggee leen ci rasulillahi di salaam ci salaam vision nga xam ne jàmm rek ko tax a jóg ak barke ak jutal jural askan yu njariñ moom rek ko tax jóg kon ñu ngi lañ koy bàyyi loo xel ngeen bàyyee xel télé boobu nga xam ne kuy wër télé boo ñëwee ba ci moom yam fa tabaarakallaahu yàlla na yàlla barkeel ci barke yonente bi alayhi salaam kon fa tabaarakallaahu ko dégg rek ni ngeen may toppee sama émission bi da ko toppee noonu di Mouhamed ñu nekk benn ñaar ñu nekk benn lañu fa tabaarakallaahu mm-hmm. yàlla na yàlla barkeel lépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu